Donc vous allez me permettre quand même d'emprunter un peu la langue de Kwaito pour mieux m'exprimer. mag ñi dañuy wax da ngay gëstu ba xam li nga doon boo xamee li nga doon nga nangu li nga doon boo nangoo li nga doon nga sax ci li nga doon boo saxee ci li nga doon ku la ñëw fonk la ci du ma seeti feneen nag ndax xaw nañoo yàgg tuuti ci culture bi fii ci Dakar tey jamono soixante quinze quatre vingt am na gone bu jóge woon Fuuta ñëw foo ko fekk mi ngi gitaaral mi ngi si cëru mi ngi mi ngi nangam nangam ne keekal la ñu ne mooy baalu fenn fu nekk mu koy dugg culture am mu jóge Fuuta ñëw ci Ndakaaru gii xamoon na lu bari ba noonu ko woññi mu lànk ko jàpp ci li muy jàpp ba tey xool leen ko tey fi mu toll ci àdduna bay xëcc waa àdduna ñu ñëw di ko fekk fële tey étranger dañ doon subir tubaab yi ñoo ñu yore woon dañ daan jël ku mel ne ay Manilu di ñu fay loolu ñuy daw imaginer léegi les chanteurs sénégalais ñooy jële ñoom di gis ñoom ñu musul donc foofu laay mën a bien que moi, il faut que nous nous nous lan pas comédien à acteur. Mhm. quand tu es comédien. es tu as un metteur tu un euh, comment metteur en scène. quand tu es dans le cinéma. tuyaa comme li mu doon voilà donc cinéma moo gën a digg adduna te adduna kenn du ko comprendre dañuy wax ne cinéma c'est la vie de tous les jours amplifiée pourquoi lii nuy dund di ko gis nu toog na ne xaaral ñu wan leen ko ngir ñu man koo moytu yéen ngeen jëlee ko ci neneen naa xool ko nangam Sénégal ak ay nangam te muy xewee ci biir Sénégal. ñaareel yéenam leen ñu ñëw wala boo ngeen di gëstu ba ñëw ci tournage neex na nga toog sa télévision da waaye daal waaye li ñu yàqu bàyyi dàq man wala boo ngeen di jox ci man damay wut parce que action coupé fa ngay mën a jaar. benn benn film boo xam ne trente minutes la nga joué que un mois réellement toogaat leen di xalaat loolu ngeen ne waa ñii lan la muy def waaye neex na lool nga yor sa télé yor sa rajo bu ñu ñëwee di ah, dem ba lii war na koo def te ñee wax na war nañu ko def ci Sénégal ñu loo xam ne bis bu génn <laughs> donc euh, nit ki di def vraiment j'étais un peu surpris parce que moom dinañu jàppale dama xalaat fekk fii ay production la mais mu suma ne bon en fait mu waxoon maay nam daw na fi. daa jël kooku euh, nañuy góorgóorlu nag ba njàngam moom bu amee ndax léegi de le monde est un village léegi xew fu ne nañu fexe xam ñun bu ñu gëstoo li li ñu doon xam ko ko ñu toog ca waaye yéen seen yëpp yéen ñëpp. ngeen baal ma de te ngeen wàcc seen laa teew kan nga du ko mën a wax. te ku xamul kan na ngelaw li ñu yóbbu. ngelaw yi leen yóbbu dafa gaaw a gaaw dafa bare bare bare ba ñoom gëmatuñ si. léeg-léeg sax nga fekk bi bi ñuy seetaan ci boobu man dama jafe looy dégg ay leneen loo xam ne réellement jaruñu ñun. kon ñuy góorgóorlu nag ba ñun kii am na ñi xam ne léegi toog nañ xam ne vraiment ci lii rek ñu mën a jaar bii ci amatul.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

56, adresse email dakarinstant.gmail.com